ok am mbégte bu baax wax dëgg yàlla tase fi nag ak ay euh, militant Pastef waaye nag ay taalibe Serigne Touba Diop Taïf ak ki nga xam ni moom la ñuy wax alaaji rafet Diop ci yow lay commencé màggal gi d'abord noo ko dundee. waaw onze billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim di nuyu waa suñu gaal 24 ak waa 313 di nuyu mbokke internet yëpp di nuyu mboole murit di ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou. yàlla jàggal ko fi ak mboolem xalifa kër Sëñ Tuubaa ak mboolem xalifa seen doo nekk Sénégal di nuyu Pastef Taïf ak la population de Taïf di nuyu aussi Serigne Cheikh Thioro mi xam ni ay wax dëgg yàlla ren fii lañ màggale ak moom di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp nag moo li ma laaj nag mooy màggal gi ak mbégte la ak sant yàlla parce que natt boo gis ak après bànneex moo ci topp. ñun daaw dañoo fekkoon ci euh, heure ñu nekk ci ay détention ci ay loxoy jàmbur loxoy xam nii defuñu waxuñu ñu jaañu doole tëj ñu yàlla defal ñu tawféex kenn kii aurait jamais imaginé que war ñun kenn ku nekk si ñun da ku xalaatoon ne bis bii déwén danañ fekk ñu am suñu liberté euh, président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sonko mooy euh, Diomaye mooy Sonko Sonko di Diomaye ñu jël réew mi kon nag yàlla su ko defee tey jii dañ ci sant yàlla te nag mu tombeek bis bi xam ne bisu cant la parce que Serigne Touba Cheikhul Khadim suñ yaakaar tey ëllëg dafa wax ne bis bi su ñëwee nañ ko àndal la ko suñu borom parce que dafa jóge ci exil ci nattu nattu boobu nag moom laa gis détenu ci dans l'histoire du monde jour bi ñu lay jàpp nga commémorer ko de sorte que heure bu dikkee nga célébrer ko loolu moom si moom lañ ko gisee. ñu ci bari suñu célébré mooy le jour de la libération ñu ci baree baree bari waaye ko xam ne yow dañ lay jàpp nga ne bis bu dikkatee képp ko xam ne yaakaar na ma wala képp ko xam ne nii maa ngi bokk nañ ay bëgg-bëgg wala bokk nañ gëm-gëm na ma ko sant rek suñu borom loolu ak tawféex dong dong dong dong lañ ci jëlee waaw. voilà kon yow nag dañu gis ni que wax dëgg yàlla euh, ku xaw a tàng dënn nga euh, est-ce que Diop discours bi warul évoluer puisque junj nga ko léegi jamono heure bi daaw yéen a ngi woon ci loxoy yoon. Euh, coow li bari lool ci réew mi beneen régime nekkoon fii yéen euh, Pastef bi nga bokk yow ñu jël pouvoir bi alors mais ñu gis ni toujours yow si discours évolué wul en fait da nga resté rek ci waaw sur la défensive di dal ci kaw gars yi mais est-ce que nag waroo def na comme gars yi aussi ngeen ngeen évolué tuuti puisque yéen a yore réew mi ak waaw boo xam ñun dañuy sant yàlla ci loolu nag li may wax nii mooy ñun président Sonko dafa dindi si ñun li ñaan complexé daf ñoo décompressé ci lu bëree bëri autant dañuy dégg borom kusi bi xoju di lakk ay di wulle ay air te jéew yi fi am yëpp ñoo ko def soo xoolee histoire politique du Sénégal ñu ko tardé mooy borom kusi bi du ma ne ñëpp nag mais ñu si ëpp ñoom ñooy sàcckat yi ñoom ñooy reykat nit ñi ñoom ñooy daal jaay doole nit ñi ñoom ñooy sa ñoom ñooy jaay doole askan woo xam ni deful leen dara te askan woo mérité wuñ considération boobu ñu leen koy teg kon loolu suñu ànd benn jëmm mu indi ñu ci la don de pour la patrie mu ne ñu ce qui nous lie c'est au-delà même de l'aspect politique mais ça devient spiritualité c'est une question de fois loolu la ñu Ousmane Sonko woo gëm nag su fekkee dafa dugg ci mbir kon tuddutu politique lan la tudd mooy jaamu yàlla mooy le la la la la vrai sens du terme même l'aspect politique parce que politique moom mooy defar askan wi defar de sorte que askan wi mun a dund dund dund tawféex loolu mooy politique Ousmane Sonko ci valeur ancestrale yooyu la delloo mooy nag kon di wax dëgg jiital dëgg suñu borom daan wala yonent bi daan xaq ku le xaq wala kaana mu doon wax dëgg doon dañ lay rey ñun suñu posture mënut a changer parce que nag dëgg moom neexul dëgg neexul dañ ñu koy wax souvent. yow lan nga defoon dañ yóbbu la prison déjà. dañ maa tooñ jaay ma doole def ma dara ma dañ maa tëj onze mois dix sept jours àtte ma relaxé ma purement et simplement dama defoo dara dama la jàppee ma dañ maa jàpp en détention d'une manière arbitraire tëj ma onze mois dix-sept jours sama justice réew moo ma àtte relaxé ma ne ma defoo daw dama ñibbi sans indemnisation yow da nga maa déggul xanaa ah, waxumay waxumay français waxumay anglais dama ne man dañ maa jàpp tëj ma fukk weer ak benn ak fukk fan ak juróom-ñaari fukk ak juróom-ñaari fan woo ma àtte ma. mais question bi dafa leer Diop ci yan circonstance la jàppee xanaa fekk ñu ne sa biir kër nga toog ñu la ciix yóbbu la kaso. bon man dama confrontation la ma ànd ak président Ousmane comme dab di ko couvrir ay événement mu dugg tribunal gars yi fekk foofu yóbbu ma après en les élections ay charge participation à une manifestation non autorisée acte amenable à comprendre la sécurité publique charges yoo xam ne nii dafa nekk délit yoo xam ne si code pénal bi suñ la ko toppee dañ lay direct mandat te insertion nga jëm. dama normalement fekk liñ may giñ moom laa def dañ maa yóbbu dañ maa war a yóbbu en flagrant délit c'est-à-dire à l'écart de 48 dañ maa war a àtte mais defuñ ko dañu doon sama dossier moo ma jural ma toog diiru boobu mais yàlla mi dara tawul leeral lépp ma taxaw ñu àtte ma xam ne dossier bi dafa vide ñu bàyyi ma dem relaxé ma mais daal li may wax mooy possible mënut a changer parce que ñun nit ñi li ma wax nii moom la ñu wax Ousmane Sonko yéen nekkatu leen da ngeen a comporter comme que pouvoir. comme que pouvoir mooy kon dañu a compété comme ñoom Macky Sall lañ fi nekkee non léegi jotul léegi ñuy xuloo jotul léegi ñuy xeex jotul léegi bon yéen daal nguuru leen tontu ngeen leen réew mi bon nekk nañ ci luxe accoutrement bi waxi ni dafa rassemblé parce que nguur ngeen nekk. bërki démb bërki démb baal ma baal ma rek baal ma non non si c'est que temps bi mooy mooy moo ñu xaj xoj s'il te plaît non non non s'il te plaît waaw baal ma baal ma jóg s'il te plaît s'il te léegi man dama bëgg bu évoluer la bëgg a xoolal on est sur la même dynamique Ousmane Sonko dafa génn fan yi bi muy recevoir quelques artistes mais euh, par la même occasion dafa saisir occasion bi pour wax ak opposition bi ne leen ay tappet ngeen mënu leen politique yéen a ngi cëppi cëppi euh, maa ngi yore fonction premier ministre ngeen yaakaar ni euh, mais maa ngi ñëw seen kaw nan nga jàngatee wax jooju ndax yéen pare ngeen pour affronter opposition bi. waaw kon mooy kon li mu wax kon xam nga yaa ngi ne ma dafa mel ni da war a changer discours. léegi yor pouvoir nga ñëwaat ne président Sonko da ne nañ wàcc damay wàcc terrain bi après màggal yéen opposition salon ngeen am kon dèjà kon li ma la wax rek yaa ngi réitéré li ma wax yaa ngi may jox dëgg c'est-à-dire ñun lépp lu ñuy def nañ ci jiital dëgg qu'importe les jugements nañ jiital dëgg ci li ñuy def est-ce que yaa ngi comprendre ñoom politique bi ñu naan politique ak ñun politique bi ñu politique bokkul nee naa ñu dañoo ne lii président dañu ne su nga ci amul ngërëm nit ñi ngeen am ci yàlla jaamu a yomb. parce que ñun li ñu tàmmal mooy politique kàcc fen wuruj ñun dañ ko fee jëlee yàlla daf ñoo jox dëgg kon dèjà nag présidence ci war a garam la nekk rôle la nekk mooy ñun ñi dañoo yor pouvoir Sénégal yi wóoluñu 54 pour cent wóoluñu dañu war a conserver pouvoir bi parce que nag damaa jàpp ne l' essence même d'un parti politique c' est de le pouvoir mais aussi de le conserver ci rôle boobu la nekk mais conservation boobu ñu war def pouvoir bi dañ koo teg ci dëgg duñ bàyyi li ñu naan seytaane waxu dëgg mais yàq na xel. ay politique seen nekk fi di jéem a sa projet bi li ma leen wax nag du ma ci sori parce que màggal laa nekk ñooñu wax dëgg yàlla Ousmane Sonko du seen moroom du seen màppandoo dama lay wax lu wér Ousmane Sonko du seen morom du seen màppandoo damaa gëm lu Macky sàll mënul ci ab police am ci si sam gendarmerie am yaakaar naa am am ñeneen ak ñoom mais ba ñu tudd mënuñ ko. d' accord dañu am dëgg si d' accord Diop euh, kon nag ñu jeexal ak alaaji rafet. Euh, alaaji rafet comme ni ma ko junjee ci commencement bi. Euh, yow da nga bokk ci ñi nga xam ni ñoo xeex ci projet bi maanaam le projet PASTEF nga affiché wu en tant qu'artiste d'abord bi ngay jël initiative boobu ndax yow euh, sóoraale woon nga ni artiste nga et que da nga war a neutre ci politique bi. waaw non seulement di si gàttal bon gàttal parce que heure bi ak waxtu wi tamit mooy rek euh, pour li ma tax a mooy bëgg sama réew rek ba mu jaral ma lu nekk jël sacrifier bon parce que tey am na ñun ndam wax dëgg yàlla tey mën naa sigg mën naa xool nit ñi te lii lépp maa ngi ko teg ci réew mi euh, changé képp koo gis mën cee gis boppam te wax dëgg yàlla loolu moo ma tax a jug te xam naa ni incha allah Diomaye Sonko aussi ñoom tamit ci loolu nañu euh, teg seen bët ci loolu leen teg seen tànk pour réew mi incha allah bu ko defee du yàggatul dara incha allah képp ku ci gisul woon sa bopp da nga ci gis sa bopp parce que ñoom loolu rek moo leen intéressé parce que du xaalis wala post wala nguur ñoom leen intéressé mooy sénégalais yi incha allah gis seen bopp ci projet bi nga xam ne mooy Pastef. projet Pastef alaaji rafet yow sa tur dëgg-dëgg naka la. maam Cheikh Anta borom gaawaan. maam Cheikh Anta borom gaawaan kon yow yaay borom dërëm ak ngërëm. Euh, waaw waaw ne dërëm bi dina ñëw puisque léegi yéen yor pouvoir bi kay dërëm bi dina ñëw wala loolu ba tay du. ah kii bi waaw parce que président gëmul lool xam nga président li mu gëm da da yor pouvoir rek ku si nekk da ngay am kii moom léppam da koo teg ci yoon ak ci liggéey ak ci ñafe waaw képp koo xam ne liggéey nga. incha allah tegu ci yoon incha allah danga am parce que moom bi muy jël euh, Sénégal li ko ci euh, gën a intéressé mooy sénégalais yëpp. amul ku nekk Pastef amul ku nekk fay ñëpp gis ci seen bopp kon nag loolu moo ko intéressé te aussi yal na ko ci yàlla jàppale ba bépp sénégalais incha allah li ñuy liggéey bu sottee képp ku liggéey rek gis ci sa bopp. Alaaji Rafet yow lan mooy sa projet ci biir projet Pastef. non sama projet mooy taxawu Pastef rek lépp loo xam ni soxla na ko ci communication wala muy lu ne. ñu dox ko parce que ñëpp xamoon nañ ma ci théâtre mais depuis ma dugg ci euh, Pastef xëy na ñàkk naa ci lu bëri mais nag alhamdulilah loolu amul sens quoi li am sens mooy daal tey mm, Pastef tey yor nañu réew mi te li leen tax a bëgg yor réew mi mooy liggéey Sénégal kon loolu rek moo ci am solo mooy nekk sama taxawaay di ñaanal président Ousmane Sonko tamit li nga xam ne digg na ko Sénégalais yi yàlla may ko ci ndam ba mu. yeggale ko jàmm ci barke yonent moo ko xaritam doomu ndeyam président Diomaye. bokkoon nga ci ñun doon recevoir keroog euh, le PM Ousmane Sonko. waaw bokkoon naa ci mais li ko ci intéressé rek mooy ñi ko ñëpp déggee mooy wax ju am sens xam ni Sénégal jëlu ko pour pàccoo ko da ko jël pour liggéey Sénégal. waaw loolu dafa am sens quoi aussi deuxième bi mooy woon ñi nga xam ne seq naag ñoom si wàllu politique bi ni leen wax dëgg yàlla kujje gi moom terewul kenn nga kujje waaye chaque jour nañ koy teg ci yoon euh, teg ko ci loo xam ni tamit euh, dina doo dépassé te loolu lu am solo la parce que moom ragalul wujjee waaw ku xam Ousmane ko rek xam ni politique moom in yàlla may na ko ci macha allah. doguma la doguma la alaaji mais lan moo nekkoon euh, but bi maanaam jotaay boobu lan moo ko wundoon dëgg-dëgg quoi. parce que yéen ay artistes ngeen ay waykat ak ay defkatu théâtre waaw jotaay boobu li ko waral rek mooy ñëpp xam nañu campagne bi xëy na am na moso yoo xam ne gars yi génne woon nañu ko pour wax dëgg yàlla taxawal euh, li nga xam ne mooy campagne bi kon nag bu jeexee en tant que waxuma la premier ministre mais ki nga xam ne moo yor Pastef di président Sonko Euh, parce que moom bu dee état bi moom da koy jëlee ci côté mais moom dafa woote comme Sonko Pastef woo par euh, félicité ñi nga xam ni ñoo jàppoon ci campagne bi remercier leen te yaakaar naa loolu tamit dafa am sens dafa am solo parce que nit ki tamit bu lay liggéeyal di liggéeyal boppam Sénégal laaj na nga woo ko ni ko gis remercier ko wax dëgg yàlla mu mu war na ni kii fàttewul kenn te ñëpp la yëg loolu rek moo ci am solo aussi ñu kontaan si lool ci woote bi parce que ñun loolu rek moo ñu ñor liggéeyal Sénégal loolu waral ñu dem teew. d' accord euh, Alaaji pour jeexal euh, yow lan mooy sa relation personnelle ak Ousmane Sonko. waaw Ousmane moom mooy ni mu jàppee ñëpp rek parce que Ousmane lépp lu ma am non non moom wax dëgg yàlla suma waay la euh, parce que ñëpp xam nañ Cheikh Thiam te Cheikh Thiam dañuy ànd daawaati jéeg maa moom ak Cheikh Thiam ak sëñ Cheikh ak euh, Diop euh, Taïf mi fi toogoon ñoo àndoon wax dëgg yàlla dem kër sëñ Cheikh siyaare ma bokk ci délégation bi ma gis ko muy nit ku woo xam ne nit ku baax nit ku am yëg-yëg ci nit parce que Sénégal fii moom kenn saxlu fi kenn tàngal am na loo xam boo ko mel nit ñi duñ la faale mais Ousmane dafa nekk nit koo xam dafa am yëg-yëg ci doomu aadama tey mënoon naa ko gis mu mel neneen man tamit damay mel neneen mais dafa am yëg-yëg ci doomu aadama di ràññee aussi. lépp looy sonn ci moom wala di ko sonn Sénégal boo ko gisee dala koy delloo ba mu doy parce que xaalis amul solo li am solo mooy yëg-yëg te loolu rek moo ñu booleek moom yo nekk taalibe nekk ku baax xolam rafet mu yéene ñëpp jàmm Ousmane yéenul kenn lu bon muy fu di yeneen parti ku jege yëpp ñëpp la yéen jàmm moo tax la may ñaan mooy ñun ñëpp ñëw ñu liggéey Sénégal xam ni Sénégal ñoo ko bokk bu baaxee ñun la baaxal bu bonee ñun la baaxal te Ousmane euh, Diomaye président tous les Sénégalais la. du président euh, Pastef rek di woote daal di woote jàmm daal la paix journaliste yi tamit ñuy def seen rôle di ko teg ci yoon xam nga képp ku def terewuñ na ñu bind mais ñuy bañ di créer loo xam ni aussi Euh, amul nekkul ndax féewale te loolu lislaam bugg ko diina bëgg ko maa woo daal ñëpp daal di ñaanal ñëpp. naka màggal gi. waaw màggal gi fi mu ne mënu ma man kat damaa góor góor a kat man kat li ma lekk kat moom moom añ moom dootuma ko defati moom. takk ngoom ñaareel ba léegi. Eh, yàlla te da ma dem Dakar nag soxna si fase ba far man kenn rek laa am te kooku rek doy na ma. doy na ah déedéet ëpp naa de xanaa bàyyi sama taal bi góor a bu bëggee jël rek mën naa jël waaye nag tey na sax ah jooy kat maa ko tooñ nag gis ka mu gën a bëgg wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man kay sëñ bi rek si Abdou Karim waxoon na ma ko nee ma Fodé bàyyi ko ak ndaw si waaye ma ne ko sëñ bi kat ko bàyyi ak ndaw si. <laughs> jërëjëf El Hadj Rafet un artiste vraiment euh, talentueux ñu ngi koy ñaanal gudd fan ba pare yaru man loolu moom gën a marqué ci moom vraiment dafa yaru am dal baax donc euh, mu doonoon 313 ak sunu gaal 24 fii ci kër Serigne Cheikh Thioro Mbacke màggal 2024.